Fatick ñu waaw wàccaay wu am solo parce que wàccaay aussi vraiment Fatick euh, ak collaboration bu ànd ak monsieur le de la région ak le chef du département je que préparation bi vraiment ngi koy waajal activement parce que tey jii fi ñu toll ci wàccaay ci ni ñu ko waxee cinquante-neuvième anniversaire suñu fête indépendance. nga xam ne tey diñ euh, ci jàpp rek mooy autorité administrative yi niñ ci taxawee ak dayo bi ko jox waaye lëkkaloo ci nag ak euh, autorité locale yi euh, le maire la commune ak l'ensemble des populations de Fatick force de défense de sécurité nga xam ne jàpp nañ sax ne ren thème bi ci wàllu formation citoyenneté la loolu yëpp nekk lu yaatu nga xam ne kenn desu ci gannaaw yàlla dogal na aussi depuis ay fan gannaaw ba CRD bi jàllee ba tey ñu ngi nekk ci activités yi préparatifs yi nga xamante ne mu ngi war a xewee nag ci boulevard euh, Macky Sall di ci commune Fatick euh, ci en face la municipalité mairie bu Fatick nga xam ne tey waxtu wi ñu tey tribune yi ñu ngi ci nekk di ko installé mais di ci collaborer yoo xamante ne tey ñu ngi taxawal ay kuréel dem ba tey aussi seen xel nekk ci jàppale autorité administrative yi ci wàll boobu ñu lëkkaloo ak ñoom dëgg dëgg militaire yi aussi taxaw taxawaay bu am solo ci wàccaay bi ci traçage bi nga xam ne moom la ñu nekkee ci bi nga xam ne moom la ñu war a organiser fête bi ànd ci aussi ak euh, civil yi nga xamante ne tey muy euh, l'inspection d'académie euh, IREN nga xamante ne tey élèves yëpp établissement Fatick yëpp fas yéene ñoo taxaw ak euh, yeneen structures yi nga xam ne ñoo nekk Fatick euh, jeunesse bi moto jakarta yi ñëpp décidé nañ aussi ànd nañ ñun ci défi bi. mu mel ni ñu ngi si boulevard bi ak les gendarmes dafa collé thème bi nga xam ne mooy les forces de défense de sécurité am nañ sax éducation à la citoyenneté internationale parce que gis nañu. Euh, force de sécurité bi ñu jàpp ci bi dama. waaw waaw ñoom sax euh, tàmbale nañ bu yàgg-yàgg sax di fësal dem bi waaye tey nag boo ñëwee ci boulevard bi dafa gën a yaa dafa gën a feeñ parce que tey ñoom ñëpp ñoo ma obligé élèves yi nga xam ne dañu nekk en formation yëpp ci école gendarmerie bi jàpp nañ ne wàllu formation bi nga xam ne lañu wax euh, moom mooy thème bi ren ci citoyenneté tey ñu nañ ko te fësal nañ ko taxawaay bi nga xam tey moom lañ taxawee tey pour ñu jàpp ci wàccaay yi waaye nag li ci gën a remarquable nag mooy li nga xamante ne tey moom la autorité administrative bi parce que daanaka démb ba tey dafa mel ni le gouverneur de la région ak madame le préfet du département ak seeni adjoint ñoom ñëpp kenn ku ci nekk liggéey bi eh, jiital nañ ci lu bëree bëri ba nga xam ne bureau ba si cooxewul waaye tey wàccaayu aussi ci wàllu organisation bi dara sooxewul parce que tey sax dafa mel nii eh, bi ñu xëyee ba tey eh, CRD bi mais tey gouverneur sa ak ay adjoint ñu ngi nekk ci bureau yu di coordonné waaye madame le préfet du département sax dafa ñëw ci bërëb bi àndandoo ak ñun vraiment di yëkkati di teg di joxe ay orientation pour que loolu yëpp nag bés bi nekk bés boo xamante ne dafay niru fête ba tax na dañu rafet loolu waaye pousse ñu sax ñu nit ñi nga xam ne dañu nekk ci dëkk bi ay comme en tant que autorité locale ah, ànd ak ñoom ñoom nekk seen gannaaw di jàpp saa su nekk rek fu ñu orienté gis ne war nañ fa am la jàpp rek ñu jàpp fa mu mel ni sax nag xalkanam wàccaay fet gi dafa nar a sax continuer na parce que daanaka sax am na ay perspectives yu jot a feeñ ci nga xamante ne mooy innovation bi nga xam ne moom la ñu am ren xalaat ko ak place bi ñuy organiser euh, fête bi ñu gis rek tey boulevard bi dafa nekk nag euh, place boo xam ne dañu war a continuer sax nag bu xaw a lëkkaloo ak euh, thème bi nga xam ne moom la ñu am tey ba nga xam ne citoyens yi nañ bàyyi xel. te kenn ku ci nekk bu fenn bi passé nii nga xamante ne mën na koo autorité def lëkkaloo ci ak kenn ku nekk jàpp ci ndaxte cet gi nga xam ne moom lañ fa def loolu mën faa continuer. bu dee waaw waaw xam nga euh, dëkk bi moom euh, ni mu tëdd rek parce que le Ba moom la yàlla dogal mu nekk ci boppu dëkk bi tant que maire waaye ñu nit euh, am cawarte lool nag di ko wutu fii parce que daanaka bis yi mel. daf ñu ci jàppale sagal ñu ci bu baax a baax a baax a parce que nit sax dinañ wax ne léegi-léegi di nga des a euh, dese waaye léeg léegi mu am manquement yi nga xam ne mooy am parce que dafay fekk sa njiit lu taxaw ni mu war a taxee waaye nag fête indépendance bi ren cinquante-neuvième anniversaire bi euh, le ministre Maire Matar Ba daf ci jàpp nag jàpp bu am solo engagé wu ñu aussi nañu daal vraiment nañu nekk ci autorité administrative yi jàppale leen bu baax a baax vraiment marqué nañu lool ñu ciy gërëm aussi di ko sant moom di ko ñaan yàlla. waaw bu ñu euh, waaw waaw défilé militaire la waaye défilé civil la aussi parce que comme ni ma ko waxee léegi ci njëlbeen bi eh, défilé bi moom euh, daanaka euh, natt nañ ci ay lim yu bëree bëri bëri yoo xamante ne tey ñi war a défilé yaatu na lool lool lool daanaka sax civil ñoom ñi nga ne fas yéene nañ défilé moom. dëgg-dëgg xam naa ne dina jox taal vraiment fête indépendance bi ren parce que ñëpp dañu approprié affaire bi fête bi engagé wu ne jàpp nañ daal suba suba incha allahu dinañ ñëw defi. dernière question mën naa ne premier xam ne prestation serment président Macky waaw ci ci ci at mi 2019 bi eh, dëgg-dëgg boobu ak léegi foog naa ne tey jii eh, muy fête bi ñuy séentu muy cinquante-neuvième anniversaire bi fii ci Fatick commune. mooy fête bi nga xamante ne jàpp nañ ni mooy fête bi gën a mag ci at mi gannaaw prêter serment bi nga xamante ne tey jii lay xew a tey ca Diamniadio ba tax na sax loolu moom it bokk na ci li ñu tënk mooy wàccaay fête bi ci ndigal yi nga xam moom la ñu jotoon ci suñu kilifa muy le maire Matar ba bokk na ci lu tënk sax ba tax demuñ sax ca prêter serment ba mais ñu nekk ci wutu autorité administrative yi nekk à l'occurrence euh, le gouverneur ak madame la préfète département boobu jàppale nañ ci wàccaay bi